ginnaaw bi ko UNESCO jàppee ab moomeel bu am solo ci wàllu caada cosaan ceebu jën ab bonkaasu doomu aadama yi ñu ràññee njabootu caada cosaan yu réewu Sénégal ak it yu réewu tugal ñoom ñëpp ràññeeku ci fent mbaa amal ay mbir ci wàllu caada cosaan di delloo njukkal Penda mbay mi waral ceebu jën bu Sénégal ñu xam ko fépp ci àdduna wërngal këpp siiwaay ak it neex-neex gi ci ceebu jën néew na ñoo xamante ne dégg nañu ko rek te dunduñu ko ceebu jën googu ñuy toftal Penda Mbaye saa su ne waral na ba Sénégal xam nañu ko fépp ci àdduna wërngal këpp ci loolu lañu ràññee Papis Niang di ab producteur booleendoo ay doomu aadama yi ñu ràññee ci caat ak cosaan ñu a liggéey bu am solo jarale ko ci ab film bu toll ci juróom fukk ak ñaari simili tey ñëwaat ci jaar-jaar ak i dund Penda moomu waral ceebu jën bu Sénégal mu wër àddina li ni mel waral fu ñu nee ceebu jën toftal ca Penda Mbaye Papis Niang producteur xamle ne Penda Mbaye yayoo na ñu delloo ko jukkal sargal ko ndax taaram waaye tamit ngëneelam taxawaayam di dund lekk am ci solo lool rawatina lekk gu sell te baax Penda Mbaye moom soxna la te ku ne soxna ne dund ku ne soxna it wax yaakaar ku ne soxna wax ree soxna bu ñu ko waxee itam xel day daj ndigle mbaa yu baax taar ngëm-ngëm jikko ju rafet suñu caada ak suñu cosaan soxna si Afrique rawatina soxna ci réewu Sénégal li ni mel waral papision ak yeneeni doomu aadama yi ñu ràññee ci caada ak cosaan ci réewu Sénégal ak i réewum France amal bile film jagleel ko ceebu jën ak it Penda doomu Ndarja ceebu jën Penda Mbaye jooju di ab togg fi ci réewu Sénégal Sénégal réewu teranga